ay appel vidéo la doon defal ay xale yu am 12 ans 13 ans di génnee ay kooyam di ko ko wan vidéo yaa ngi nii Kouthia Kouthia tey duma la may dara laa ilaha illallah Kouthia Collé fay la yóbbu ca sëriñ jox ko turu yaayam jox ko turu papam Collé fay Aminata Faye pour sëriñ bi liggéey ki nga xam ne moom mooy Aminata Faye ak sëriñ bi di ko wax liggéey bi fan la koy defee ak fu mu koy suul voix Kouthia ku di dégg Pape Cheikh li ko Kouthia caawaxal di ngeen ko dégg euh, Ndiaye mi gaañu li ko Kouthia waxal di ngeen ko dégg Alassane Mbaye mi dawul coow li ko Kouthia waxal di ngeen ko dégg Bougazelli li ko Kouthia waxal di ngeen ko dégg xale yim doon kat appel vidéo di vidéo ay kooyam di ko yónnee ay dënnam maa ko yore te damay kat ndayu lépp may ma ma ñëw sa waaye man ku laal Viviane dootoo laayalati Viviane képp ku ko laal wala di ko yàqal dinaa dëgg sa ndey ci baatin ak ci zaahir man Viviane ak Wally rek laa am awuma keneen barke alxuraanu karim dootoo ko defati fii day summeeku ba wàcc ci koy yi mais bu ngeen gisee koy koy ku caabi bàyyi àdduna bu ngeen gisee dambalu Kouthia bi ba àdduna mais foofu duma fa ñëwagul duma fa ñëwagul wuy ma duma fa ñëwagul euh, fi may ñëw fi may ñëw xam nga la la dama bëgg ngeen déglu audio yi ngeen xamante si nii Kouthia démentir na ko ci li ko Amina Poté waxal ñu ñëw ci Pape Cheikh na dambal yi ak ñooy fee ñooy tëj émission bi ñu déglu li mu démentir wuy ma damay fay sama connexion pour kenn bañ ma wo parce que lima yoré tay nit ñi danañ ma wo dama fay sama connexion buma kenn wo deglu len démentiri ñu doga ñew ok il boss il boss ñu deglu ko ca limu démentir léegi maa ngi la fotom jox la sar ñu naan Wow. ok dama leen di wax leneen rek li mu def audio yi moo ko divulgué moo ko génne waaw ànd ci benn waay bu allo waaw fi nga nekk moo amul réseau moo tax du ma la dégg bu baax ma moom moo ko génne sa jabar ji nga doon sëyal moo audio yi ma ne waaw ok. yaa ngi dégg. waaw yow rek laay déglu léegi. voilà moom moo jël audio yi ak vidéo yi scanner sama téléphone. Mhm. ci paramètres yi jël samay audio ak yenn vidéo yoo xam ne moo ko monté. am na yoo xam ne nag man du waxuma ko am na yoo xam ne moom moo ko créé pour mun a continuer di chantage parce que dafay laaj xaalis. naa ko fay un million et quelque. lu ci mel ne parti bi mu waxee naan ay Amina Guèye laag dafa seq ak guy wala keneen ak keneen ak keneen yooyu vidéo yu nu monté la. yooyu dafa monté man xaw ma yow déggu ma la man yooyu xaw ko ba gis nga man je suis quelqu'un boo xam ne def naa trente ans de carrière man du ma fenantu du ma waxantu. Mhm. comprends nga. Mhm. Mhm. quatre vingt dix li muy wax man lu ma man lu ma wax dama koy assumer. Ah, man lu ma wax. xanaa ma déggee wax yi ko yónnee. fépp ma naan Kouthia Kouthia ñëpp naan Kouthia Kouthia déedéet dama ne damay woo Kouthia parce que man Kouthia man yàgg naa wax ak yow nga nekk sama xarit. la wax ne. musuma dégg si yow dama wax ne wax ji koo koo bàyyeeg yàlla doo koo kalaame doomu aadama mais bu demee nag ba ci commencé excès. jigéen boo xam ne mun naa leen jigen bon na mais amina wéra na billahi limala ma wax dafa waroon a tey bala ngaa génn di bala nga génn di def interview du woo média yeen xam ngeen adamu dafa mën planit buy nit day def comme jiko saytaane lay ñëwé après nak ki lay yollé ko wo kenen ki wo kenen ki am ay preuve yu leer do ga ñëw live duma nit deglu ni may ak mom comme ci ki sa ba saytaane mom la faral ku caa tey lay doxan sa ndey bëriw mi yëngu nan deglu rek da nga wara waxana mu ngi pare mu ngi wax na kër gen mu ngi amina am Amina mu ngi wax ne Kouthia doon wax ak benn gelam mu fuite du sama gel. sa jabar la ma jabar la. yaa ko takk. dama ko takk ci faratu suuf sama jabar la maa ko takk ñu tàggoo mooy chantage di ma laaj xaalis man ko du ma la jox bu la ma daal yàq ba àdduna waaw ku la yàq ba àdduna yëg ko mais ci biir laaj moom wax na la. Hmm. jigéen baaxul. yëkkati téléphone yow ku caar mu woon a téléphone. dégg ma. allo. sama problème mooy dama sama problème mooy Amina li tax mënu woon a téléphone am mu woon téléphone bala moo génn dem ci média yi. waaw dama waaw waaw ma dégg sama frère nga dafa ma dégg li dégg ndax yow la war montage la ko lan la mu tek na génn génn woo média yi wax allo allo waaw maa ngi dégg waaw allo kii di génn vidéo yi yaa ngi dégg léegi père maa ngi lay dégg waaw kii di génn vidéo yi audio yi muy génne c'est elle qui monte les vidéos et les autos parce que daf ma laaj xaalis di ma chantage ma ne ko du ma la jox xaalis mu ne ma dinaa la yàq ba àdduna bi yëg ko ma ne ko am ci man génneel. Mhm. yaa ngi dégg. waaw waaw les comprendre xaw ma ak ban xaw ma ban technicité la def mais à quatre vingt dix pour cent lépp mu génne ay montage la parce que daf may laaj xaalis mu bañ ko jox xaalis. duñ doon sëy tàggoo du sama gel de bu nit ñi yaakaar du sama gel. loolu moo war a leer nag loolu moo war a ndax ñuy génne ay audio fooy doxaanee benn jigéen ñu naan ko caa déggal li muy def nekk li muy nekk ci télé bi cagala ak nangam ma leen déedéet xamu leen lu audio audio yi audio bu ne génn na fii. yaa ngi dégg. waaw moom nag mooy dem di def yooyu yëpp di récupérer samay ancien parce que tamit nit téléphone boo yoree téléphone garde sa whatsapp sauvegarde say audio. Hmm. sa jabar photocopier ko. Hmm. scanner ko. Hmm. jël say audio ak yëpp di ko transformer di ko gaawal di ko yéex di ko mu def ay montage. yooyu yëpp c'est ak ay pexem parce que daf chantage man nag du ma seree si chantage nit du wax ne ma soo ma joxee lii soo ma joxul lii damay génn lii dama naan la génnal je suis mes responsabilités parce que man mënoo kenn du ma chantage man kenn du ma chantage. roqee ku bon la. sama jabar la kon ku yaakaar ne sama gel la. fii laajte fee xëcc fii dem laajte fee xëcc fii dem laajte ay affaire am ko def. man moom bu ma doon sama bu a doon Amina Poté sama téléphone daan na tontoo ko caa nga ne ma ah ma la ah léegi léegi lii laa dégg ndax yaa doxale nii mais doo woo média yi rek ñu génnee noonu. man man man man man man moom ci cadre man man man ak moom dama koy bàyyi ak yàlla. Hmm. xam nga ma lay ñaan bul génn ci média yi di woo média yi di. waaw yàlla tey waroo ko. muy moom ak sama yow di wala li nga am nii tey dama bëgg nga wax yu leer que ne ndaw si dama lay te ko caa li may wax nii sarab ndeyam joxuma ko ci ay preuve preuve yi maa ko lijjantil sama bopp moom ay wax rek lay wax tuunu ndeyi preuve amu ko man maa lijjanti preuve ba lijjanti vidéo bu muy bu muy kattante xale yu am 12 ans ah, ak di leen wan seen vidéo di génne ay koyam ak i xuuram yu mel ne euh, deru nag. dëgg la yónnee ma fotom. ok Amina moom lu mu wax baal naa ko. keneen koo xam ne da nga dégg la ko su loolu ak nga commenté ko su loolu baal naa mais day yàq def parce ñëpp ak lay xas ñëpp di la wax lii xam nga tamit sa jabar ji ku bon la wuy wuy noonu sama ñaareel la woon sëy sama ñaareel la am certificat de mariage dem sëy ci jàkk bu nag di jël ay instruments di la instruire di weer kon kooku sëy tax koon jóg ndax ki la bëgg dëgg dina la sàmmal sa sutura. waaw mais bu demee bay jënd say audio di la laaj xaalis c'est parce que kii bi muy dugg ci yow xaalis la doon séntu. jàppoo ne yow jàppoo ne yow dañ ko yónnee woon ci yow ba muy seey ak yow pour mu jéem am dara ci yow pour mën laa weer. loolu la parce que parce que parce que yi mu def yëpp di seey ak nit di éviter di am ak moom ay doom. un ah, an. bu doon day bu dee bu dee day éviter bu dee da doon éviter di doom kon kon kii dafa mel ne am lu ko taxoon a jóg. ko taxoon a xam nañ ko mooy finalisation bi lii chantage ma détourné ma am na ñu nekk ci ginnaawam parce que bi may dugg ci xam naa li taxoon ma dugg ci moom diine la ma waroon ak lislaam di wax ak nit ki di teg alxuraan ci suuf naan ko damay dama woor su ma su ma waree naa wax ak yow y a des xam ne bëgguma ko divulguer parce que man xam ne du ma mu dara. musuñu ma gis Wally Seck musuñu ma gis Pape Diouf musuñu ma gis Youssou Ndour ànd naa tourné Youssou Ndour pendant bi gisuma ci ci ma joué dem tëddaat hôtel man wóoruma Zahir. man moom Amina Poté benn artiste bu man Amina Poté sax ay mbiram daf maa saful man kay lenn rek moo ma ci xaw a métti mooy sama yaay ji Viviane sama yaay ji nga xam ne ku baax la te yow mi ami lu rafet rek la ma daan wax ci yow lu rafet rek dama ne waaw dama ne Viviane bu wéetee xam kan mooy Kouthia. waaw lu tax ba ñëpp bàyyee bi ñëpp man maa jàpp. Hmm. bi ma amee doom ak ak bi ma amee doom bi ma amee problème ak a Poté maa jël engagement bi lu ne laa dégg seytaane nga looy tax ngay faral doomu Viviane. dëgg la de non loolu kay fi la ma fekk bàyyee man maa ko jàpp loolu fi la ma fekk. loolu moom wax dëgg yàlla mën naa ko seede man bàyyee bi ko man maa jàpp. waaw ah. tey neex am ñu nekk ci ginnaaw man moom xam na man xam naa yàlla xam na te waxal ko ko a ko waxal lu bon xam naa audio moo doy waar rek. waxal ko Kouthia nee na xam nga moom xam na yow àll su ren man damay sutural ni waaye kul xaabil sa sutura jëkkër ci internet du jigéen du baax. dëgg la de. barke Seydina Mohamed du ma du ba pare di di boole nit li ma def nii c'est parce que il faut ma def il faut ma def ko sax si parce que dama may dama am dama am njaboot dafa ñu ma bëgg. Mm, mm. dafa am ñu la bëgg sëriñ dafa am ñu la bëgg de mais échange bi ñu ngi détourné sa oto yi di ko ah, avancé man ñu ah, ngi woon lu dëkk bi di riir bi man maa ngi ci Sonko Macky Sall nekkate yéen yéen a ngi toj internet bi man lii mosuma ko xam. dama ne dama ne. waaw. nit nit yàlla xol xol lay fay xol nit yàlla ci xol lay fay boo setee ku set moo lay moo lay bëgg. xam nga xamul li may wax. waaw. li may def nii métier bii nii c'est pas donné à tout le monde. non su ma demee ba ay waaw ba pare dañ cee ay su ma demee ay kilifa diine su ma demee ba ay kilifa diine di ma seetaan di ma accepté xam nañ jàng jëmm gi ñu jàkkaarloo ko set la ndax ñoom xam nañ lu set ci nit ak lu setul ci nit man du triché du bu booli saam ko di di di def di def zaayir lii mu wax nag yëpp moom moom ndaw si génn ko ak képp ku collaboré ak di def ay conférence de presse di ma déglu dama lay bàyyi ak yàlla yàlla dina leer mais léegi